sëriñ Cheikh Tidiane si Al Maktoum mi ngi juddu ci atum 1925 ci Ndar Géej doonoon na sëtu El Hadj Malick Sy mi sos tarixa Tidiania fii ci réewum Sénégal nekkoon itam doomu Seydi Ababacar Sy mi ngi màggee ci wetu sëriñ Cheybatu Fall imam Moussa Niang ak sëriñ Alioune ak ñeneen ak ñeneen ñooñee ñi ngi doon ànd ak waajuram bu góor di Seydi Babacar si jeexal na njàngam bu njëkk cycle inférieur niki bi mu amee fukki at ak ñeent génne ab liiwër bi mu amee fukki at ak juróom benn tuddee ko les vices des marabouts ay at tegu ci mu génne beneen liiwër tuddee ko l'inconnu de la nation sénégalaise El Hadj Malick Sy ba mu làqee fanweeri at ci la tukki tukkeem bu njëkk fële ca réewum Paris yàgg fa lool Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum bokkoon na ci ñi ëpp xam-xam fii ci réew mi waaye mënul woon demee neneen bu ñu xamoon kii di turandoom ne moo génne li liñ doon tuddee division de l'atome Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum doonoon njiitu Moustarchidine wal Moustarchidaat yi daan na màggal at mu jot mawluut doon ko amalee ci champ de course bu Tiwaawoon wuy ji na suñu borom niki fukki fan ak juróom ci weeru mars atum 2017 ki ko fa wuutu di sëriñ Abdul Aziz si Al Amin sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum génn na àdduna boobook léegi mët na ñetti at waaye terewul ay njàngaleem ñi ngi des benn tey. sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum a vu le jour en 1925 à saint du Sénégal il était le petit-fils d'El Hadj Malick le fondateur de la confrérie Tidiane au Sénégal et le fils de Seydi Ababacar si il grandit au côté de Sirin Shaibatul Fall, Imam Moussa Nyang et Sirin Alunkei entre autres. Ces derniers sont des compagnons de son père, Ababakar Ababakarsi. Il termine à 14 ans le cycle inférieur et moins des études islamiques et publie à 16 ans son premier ouvrage appelé Les vices des marabouts. Puis, plus tard, il sort L'inconnu de la nation sénégalaise, Elage Maliksi. À la trentaine, il effectue son premier voyage à Paris où il a vécu pendant des années. Chez Ahmed Tidjansi Al-Maktoum s'est invité dans le cercle restreint des scientifiques les plus émérites. Cela ne pouvait être autrement si l'on se rappelle que son homonyme est l'un des premiers théoriciens de la division de l'atome. Guide spirituel des ou al moustarchidat Ahmed Tidjansi célébrait chaque année le Mauroud au champ de course de Tiwawon. Il est rappelé à Dieu le 15 mars 2017 et a été remplacé à la tête de la confrérie par son frère Serigne Abdul Al-Amin. Quatre années déjà, les enseignements de Al-Maktoum restent d'actualité.